sóoraale bi ah. génnoon ci saabu. saabu moom mënatuma cee génn. doo xëj doo indoo rab ba nit. alors que indoo rab ba nit. xanaa bi dina ñëw xanaa ah, bi. day dugg téléphone am mu ngi nii ci sànq Fatou Mbaye la nekk. Akim. Antoine Mbaye.

leen ko ko téyel leen ko ko waaye moom ni ma ko def Huh? Karam suba ba tey ma toog kër ga. barke yàlla suba ba tey maa ngi kër ga pour tuuti rek. mais seen image yooyu noonu man mënu ma ci bokkaale. soxor ngeen de. ngeen dem ngeen dem ngeen bàyyi ma fi man kese. eh boo ñëwaat ñooy am. ah waaw kay. yaa xam man da nga xam ne laa nekkoon doon suba ba tey ay ay ñoo xam ne dañoo ñëw noonu. commissaire man déjà waxoon naa la lu leer. ba wàcc sol daal bi. man daal daal bi. ba wàcc fan. si kër ga. ah ma ne teg la ko kon benn yoon. waaw xam nga loolu dafa bëgg di. daara ak yéen ñu boo demee ba pare yow lay wàcc oto bi. oto bi daara waaw yow booy dem bay wàcc ci oto bi. ñu ngi taxaw foofu fees dee la xool. bu feeñ ñu ngi am na nooy doxee daal bi du feeñ boo eggee ba kaw nga sol sa daal comme que kii indiwul bee. bët ngay taal nga bëgg ñu takkee la fii. lan la bëgg lan la. daal lu la daal sol mais béykat yi changé wu ñu ko. il faut que ñu déranger sax ku lay gisee ci daal dafa dox xanaa. loolu kenn du kenn ko critiqué ci daal. critiqué wu ma ko si de dafay sax non man moom dañ ne dañ ne ñu ko gisee dañ ko critiqué ci daal même pas sama waaw waaw. comme ni nañ def. ñu sant na jekk nga. oui moom ah dañ sa fi. lépp organisé normal mhm. damaa kontaan. Mhm. Mhm. macha allah ay nit baax lañu. lan nga wax sa jëkkër boos parce que démb gis nañ mu ñëw ci ene ndax loolu gën mosu ko gis ci Sénégal ngay ene sa jëkkër ñëw. yéen loolu waru leen bett. Ah. ndax lan ndax lan. ngeen ko gis gisoo leen ko jëlee. ndeysaan ndeysaan lan nga koy wax lan nga koy wax mu bàyyi ñëpp ñëw ci yow ni ummi la lan nga koy wax. kontaan naa ci moom sagal na ma. sigil na ma. lan ngay wax say am di jàmm ak say soppe yi nga xamante ne ummi rek la ñuy topp ak boos. ma leen di wax ne tey jii li ñëpp doon ñaan. tey jii yàlla topp ko. macha allah kontaan naa trop bi ku fi génn ummi sañ sa nga nag. sama rakk ji ñëw génnee nii. maa laalal ma robe démb nan nga ko waxee nga ne ko aawalan la nga ne aawalan la. baale <laughs> yaay baale. ngi lay nuyu di la jaajëfal ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. <laughs> gis nañ sa complicité yaak sa papa. démb. sa papa sama lépp la sama papa ñu ngi lay jaajëfal euh, di la wax heureux euh, di la sant di la gërëm sañse bi macha allah. merci kontaan naa trop. Uh-huh. ngeen def teew ngeen sama uh-huh. kontaan nañ <laughs> baax na ma jël ak sa tool waaw waaw c'est vrai ñaata lañ am. ok waaw ma waaw ma ma ñuy bi info bi doxaloo la demal. ok ñu ñu daal lay ñëw fekk sa jour de mariage lan ngay ressentir la fekk nga sol li nga xam ne moom ah mbir moomu mën a am jour bu gën a rëy jour bi. di wax ni kontaan naa kontaan naa trop. yéen ñëpp macha allah maa ngi kontaan ci yéen bu baax ngeen def teew xam nga kontaan naa daal. parce que tey boos boo doon ko décortiquer ban façon ah, la ci biir góor yi. la <laughs> ci biir góor yi mooy lan. ah <laughs> mooy lan loolu. ah <laughs> loolu ma ne ko waxee woon nag xam nga rafetal bu yàggee. Eh. tey ma takk nañ ma tey doo ma wax ma boos takk benn fierté la ci am. dara sax la. mais ma jël ma jël quoi. li nga am nii doy na santal Yàlla. mu ngi ñu jël taxi ci suuf. ah wala oto bi mi ngi ñëw.

macha allah na boos bi tey nit ku yi góor la ci loolu wala mais toogal nañ sa photo yi Fatou Mbaye ah ko jël waaw balaa di ñëw rek ngeen jël quelques prises rek mu toog xoolal nga génn tireen robe bi tuuti

ok.

loolu ma ne ko waxee woon nag xam nga rafetal bu yàgg la. tey ni ki xale yi doon tey naan takk nañ tey doon wax takk nañ nga jàpp. mais am na jaww ji. waaw balaa nga di ñëw rek nga jël quelques prises rek mu toog xoolal nga génn tireel robe bu